sant mosoo wax nga ŋàññ Ablaye Wade. jamais. même Karim Wade malgré vos divergences mosoo wax nga ŋàññ ko. Euh, vendredi mu am un membre de cette famille libérale qui ne pas n'importe qui muy euh, Idrissa Seck qui doit tout à Wade qui a été créé par Wade comme Wade ni mu créé ñëpp mu taxaw euh, durant tout son discours. man xaw ma erreur de communication la euh, wala boog lu mu lu mu lu mu def exprès la mais yëkkati ay kàddu et d'ailleurs boo xoolee liñ ko gën a critiquer ci discours am bi mooy wax yi mu wax jëmale ko ci Abdoulaye Wade jëmale ko ci Karim Wade yow mi bokkoon ci biir nan ngay analyser wax jooju est-ce que erreur de communication la comment est-ce que un membre de la famille libérale qui aspire à la présidentielle peut se permettre de se mettre à dos Abdoulaye Wade la famille libérale et beaucoup de Sénégalais qui ont de l'estime pour cet homme-là erreur de communication la wala am na lu nekk ci diggante bi loo xam ne Idriss ça ne passe toujours chez chez chez Idrissa pour ban alternative ngay pencher. alors euh, lu ñaaw moom lu ñaaw la rek lu baaxul lu baaxul la mënuma ko trouver justification wala explication mais du lu war a am. du lu war a am am na lu ñu war a regretter la lu ñu war a jégglu la ginnaaw bu ñu ko ñaawloo ba pare parce que Abdoulaye Wade ak lu mën dégg ak lu mu mënoon def doomu adama am na lu ko yàlla defal li xale yi naan mag buur la lu def yàlla baal ko ko mag buur la Wade lu mu def Sénégal yi jéggal ko ko rawatina bi nga xam parce que man am na yoo nga xam ni jàpp moo ko sax ni nit ki def naa la dara xam nga mi ngi mel ni ñaari mbër yu nekk ci làmb ji di bëri da nga koy dóor mu lay dóor c'est la logique bu làmb ji jeexee jeex na amul ay yow mii Amadou Diouf keroog ba ñu bëree dóorul nga ba non parce que combat bi jeex na am na un moment c'est vrai Wade ak Idrissa dañu nekkoon situation de conflit di xeex mais loola jeex na li war a am te war a am ba toujours mooy relation baay ak doom tu as raison de dire li ko Wade defal comme man lim ma defal comme lim defal suñu morom mais aussi faut pas il faut reconnaître aussi le mérite des autres kenn ku amul kenn ci ñun ku tëdd sa néeg di nelaw ñu yeela fal la ça aussi il faut le reconnaître man welo laa doon dox di wër di implanter le PDS à dans tout le département de Thiès un infirmier un comment l'appelle euh, euh, les animaux là un vétérinaire qui était à Xombol du nom de Kanté moo ma daan abal moto ak ñu doy càmbu si ñu yendu ci àll bi ci fanaan duma nañ ñu dàq nañ ñu tëj nañ ñu kaso ay tout ça donc nous avons que nous devons mais il faut dire que bam ñuy tànn di ñu responsabiliser suñuy naw léegi foon ñu manoon li ñu man donc nous lui devons énormément mais même bu ñu deful woon dara le combat de Abdoulaye Wade bien avant les indépendances Abdoulaye Wade qui était l'avocat des prisonniers du FNL d'Algérie. Abdoulaye Wade qui paye les billets pour les combattants du MPLA d'Angola saa bu ñu mësoon nekk di génn muy fay seeni billets di défendre devant les tribunaux français les prisonniers du FNL d'Algérie xeex pour l'indépendance du Sénégal ku ñu fi mës jàpp que soit Cheikh Anta Diop que soit Mamadou Dia que soit Cheikh Tidiane Sy et d'autres il les a toujours défendus créer le Parti démocratique sénégalais def li mu def vingt six ans d'indépendance agsi au pouvoir et comme j'ai l'habitude de dire la plus belle réalisation de Wade elle n'est pas matérielle c'est d'avoir redonné confiance aux Sénégalais ak ñi mu quitté le pouvoir kooku wax dëgg yàlla ku ko waxul jaajëf ñaanal ko comme ni ñu ko defee tous les jours nga mën ci maanaam. le mérite d'Abdoulaye Wade c'est d'avoir eu la générosité de générer tellement de talent politique qu'aujourd'hui on ne peut pas aborder l'avenir de ce pays sans les libéraux il y a pas un parti. mais c'est la vérité qui a généré trois potentiels can un président de la République et deux potentiels euh, présidentiables muy Idrissa Seck ak ak ak ak ak ak Karim ak Karim Wade et Wade est devenu un facteur de consensus national. il rejoint Senghor et Cheikh Anta Diop. comment comprendre un homme politique à la veille d'une présidentielle ngay taxaw et puis et puis des termes des termes d'une d'une violence inqualifiable. nettali xuloo xuloo la. non du nettali xuloo Idrissa rek dama lay rek. dama bëgg yow yaa ngi waxtaan ak Idrissa. erreur yu mel noonu Idrissa waru ko def. mais je mais li ma la wax ni nit mënu ko passé mais rappelle-toi en je veux pas rappeler parce que lu ñaaw kenn du ko kenn du ko kenn du ko fàttali mais erreur mën na dal ku nekk gis-gis ni lii xëy na nga defee ni jamono bi moo baax mën na dal ku nekk mais quand on que du noonu. ñu xam nga quelqu'un m'a reproché après le la sortie de Idrissa j'ai fait un papier où j'ai repris cinq points li ma ne loolu laa jàpp ci discours am bi waa ni ma mais pourquoi il y a deux points yoo yoo omettre benn li mu wax Wade waxoo ci man ko du ci wax man bëgguma dégg sama nopp yi lu jaaduwul mhm. nit du ma sa dégg dox ba dégg man wala ku bokk ci man wala sama doom wala ku ma yara nga saaga